bismillah kon ñu fàttali na ba tey rek ñu ngi dellusiwaat ak yéen suñu jotaayu tafsirul quran comme ni ñu ko baaxoo defee jamono bu nekk rek ci waxtu wi incha allahu taala nga xam ne kon ba tey rek ñu ngi toll ci yenn ti aay nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo koy tudd di ko nettali yahud yi nga xam ne ñoo doon ci jamono bi alquran di wàcc nga xamne ñom ñoo doon dund ak yonente bi suñ borom di leen nettali seen jëfi maam yo xamne seen maam ñom ñoo ko fi defoon tay mu ñëw ci aya bi di wax wa is musa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittixaasikum al ajla kon nag fa tuubu ila baariikum faqtulu anfusakum dalikum xayrun lakum inda baarikum fataaba alaykum innahu huwa tawaabu rahim waaw wa is qaala fàttaliku leen ba waxe waxee Moussa Moussa mi qawmihi ñel aw nitam leen yaa xawmi yéen sama nit innakum wér na ne yéen falamtum tooñ ngeen anfusakum seen bopp bittifaasikum al ajla ci jàpp gi ngeen jàpp yëkk wi di ko jaamu bàyyi fi yàlla kon nag fa tuuboo tuub leen ilaa baariikum jëm ci yàlla mi leen bind faqatul wa te ngeen rey anfusakum seen bopp dalikum loolu xayrun moo gëm lakum ñeel leen inda baarikum fa yàlla ma leen bind fa taabati mu jéggal aleykum ci yéen innahu wér na moom yàlla hu moom ci dëgg-dëgg at tawaabu mooy jéggalaakoon bi arrahimu mooy ku bari ki yërmande yàlla Moussa bi mu dellusee leen wax ne da ngeen tuub jëm ci seen boroom ndax li ngeen def jéggi na dayoo liin war mooy ngeen tuubal yàlla tuub googa nag ndigal la ko ci suñ borom joxoon ñu war koo def mooy ñoom ci seen bopp tuub gi day ànd ak ñu rey seen bopp loolu moo indi faqtulu anfusakum rey gi seen bopp nag tekkiwul ne kenn ku ne day jam boppam ngir dee waaye lam leen digaloon mooy ñu xool lim ba nga xam ne ñoo doon jaamu nag wa ñu jël lim bën a toll ca seen moroom ya nga xam ne ñoom jaamuñu woon nag wa kenn ku ci nekk ñu digal ko mu rey kenn ci ñoom loolu mooy ngeen rey seen bopp nga xam ne kenn ku ne kenn ku bokk ci ñoom moom moo ko rey wax nañ ne sax suñu borom def na ci yërmande yi bañ tollee ca rey ga dafa wàccee lu mel ni aw niir bu ñuul ba jaww ji lëndëm lool ba kenn ku ci nekk sax ki nga rey xawoo koo gis bu baax ngir xañ na di ko ñeewant di ca bañ a am nga xam ne jéggulu ko suñ boroom daa ànd ak ñu rey leen ca noona ca leen suñ boroom nag jéggale fekk am na tuub goo xam ne moom la leen njëkkoon a jox mooy ñu tànnoon juróom-ñaar fukk ci ñoom waroon a ànd ak Moussa ci béréb boobee mu doon jaamoo yàlla ngir tuwal fa yàlla ba Moussa sax defoon na noonu jëloon na juróom ci ñoom àndoon ak ñoom. dem ngir jéggulu suñ borom subhanahu wa nga xam ne ci suratul araf ba tey suñ borom mi ngi koy nettali foofu di wax ne Moussa tànnoon na lu mat juróom-ñaar fukk ci ñoom ñu demoon ngir tuubal yàlla mooy waxtaara Moussa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina waaye falamma axasathum rajfatu qaala rabbi law chita ahlaktuhum min qablu wa iyaaya قال أتهلكنا بما فعل الشفهاء منا عيسى إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء waaye lu mën a xew rek anta waliyuna kon faxfir lana warhamna wa anta xayrul xaafirin wax na dëgg Moussa noonu la def tànn na ci ñoom lu mat juróom-ñaar fukk ñu dem ngir tuubal suñu borom waaye ñoom ñu dem rek defati fa tojaangi wu mag a mag ndax ba ñu eggee dañu ne Moussa nun sax léegi li wér mooy yàlla ci boppam nga ñuy wan yàlla ci boppam lañ bëgg gis ak suñ bëti bopp yi moom yaa ngi wax ak moom daal léeg-léeg nga naan yàlla nee na koy waxal di di dégg kàddu war koo mën a gis egg ci ne ko gëm la sax dëggalal ne yàllaa la yónni duñ ko def lu dul ne dañ ñoo wan jëmm yàlla looloo tax nag bañ defee noona suñ borom alal leen fa daal leen di faat ñoom ñëpp ñu daal di faatu moom lay wax fi naan wa is qultum ya Muusa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa axazatkum saaxiqatu wa antum tanzurun mm-hmm. wa is qultum fàttaliku leen ba ngeen waxee ni ko yaa Muusa yow Muusa noonu kat lan nu'mina duñu dëggalal mukk làkka ñel la xataa nara Allaha lu dul ne dañoo gis yàlla jahratan ci suñ bëti bopp yi comme ñi ngi koy dégg daal moo dégg war ko mën a gis comme yaa ngi naan yàlla nee na daal léegi moom du ñu dëggalal mukk lu dul ne dañoo gis yàlla loolu nag lu doy waar la waaye suñ boroom digal malaayika mu xaacu leen ci lañ faatoo ñoom ñëpp mooy fa axasatkum saaxiqatu fa axasatkum te jàpp leen ak saaxiqatu xaaju ka wa antum te fekk yéen tanzurun yéen a ngi jànloog ñoom suñ borom daa bëgg wax ne lii muy wax ñoom booba seeni maam ñoom la daloon waaye ñoom ñi mu koy ñettali itam xam nañ nga xam ne noonu lañ faatoo ñoom ñëpp juróom-ñaar yëpp Moussa daal di jaaxle lool moom itam ci li xew ginnaaw moom dañoo defoon ak tooñaange ci jaamu lu dul yàlla ba suñ boroom jox ko ndigal mu ànd ak ñoom dikk tuub tuub yëkkatiwul leen suñ boroom faat leen Moussa foofu looloo ko indi lu jaaxle ndax moom dafa gis ne bàyyi na dëkk ba ak waa dëkk ba ànd ak ñoom ñëw fii ngir ne dañ lay tuubal nga def leen nii kon kat dana diis ci man ma delluwaat ci dëkk ba ñu ne ma anañu maa ngi leen yàlla rey na leen kon nag bu ma sañoon rek moom nga nga dekkil leen nga xam ne moom daa daa sàkk suñu boroom dekkil leen xëy na sax alxuraan texte bi andi ko fii waaye wax nañ ne loolu sàkku na ko ci yàlla moo tax suñu borom dekkilaat leen moo tax léegi mu wax na ci kanam suma baas naakum min baadi mawtikum laalakum tashkurun Mm-hmm. nga xam ne comme nee na ko daal bàyyi nañ dëkk baag waa dëkk ba ñëw te tuubal leen rek leen yëkkati daal nga def leen nii rey daal moom dana diis ci man ma dellu ci loxoy kasi ndax ma mënoon nga ko ci biir dëkk ba ba ma fa nekkee ñoom ba ci man sax mënoon nga ma faa faataale te loolu lépp defoo ko ba ma ak ñoom ba ñëw fii daal wax dëgg bu ma sañoon ñu dellu nag ci mm-hmm. la ko wax naan ko law chita ahlaktuhum min qablu wa iyaaya kon nag atuhlikuna bi ma faala shufahaau minna ndax dañuy alak ci jëf ji nga xam ne nit ñu gàtt xel ñi rek ko def teg ci nag ne in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha daa ne ko waaye lii nag xam naa sa fitna rek fitna la joo xam ne mën nga cee réeral ku la soob man nga cee gindi itam ku la soob waaye lu mën a xew ñun amuñu ku dul yow anta waliyuna kon nag faxfir lana warhamna wa anta xayrul xaafirin yàlla daat koy dégg ndax baat yi mu waxit nag ku ko wax yàlla mel na ni mu dégg la waaye ful loolu ci kanamu borom ñaan na ko wan na ko it ne buur bu am yërmande rek yërmande nga te am njëggal nga xam ne suñu borom noonu la leen dekkilaate ñu dekkee nag ci lañ leen joxaat tuub gu mujj googu nag muy faqtulu anfusakum dalikum xayrun lakum inda baarikum nga xam ne léegi dañuy jotoo seen bopp ci bàkkaar boobu kenn ku ci nekk dañ koy war a rey nga xam ne kenn ku ne moroomam moom moo ko rey loolu moo indi wax jooju mu wax ci kaw. ne fa tuubu ila baariikum faqtulu anfusakum dalikum xayrun lakum inda baariikum ba tax na fataaba alaykum gis nga innahu huwa tawaabu rahim bu ko defee nag ñu wax la rek ne suñu borom subhanahu wa taala léeg-léeg nga gis mu wax dara digle ci ak rey waaye loolu du soxor defar kaw suuf rek lay doon fii ci sariya sax léeg-léeg nga ne ko am soxna ba noppi bàyyi ko fa di njaaloo kaneen yoon nee nañ ko rey jigéen ju am jëkkër ba noppi tam bàyyi ko fi di njaaloo kaneen yoonam nee na nañ ko rey donte que sax ki amoon soxna di njaaloo amatul soxna tàggoo naa moom it ciwul bu njaaloo dañ koy rey ko mosoon naa am soxna ba mosatu dëng moom daal nee nañ bu wëlbati noonu dañ koy rey jigéen ji su fekkee daa mosoon a am jëkkër ba mosoon a tëdd ak moom ginnaaw bu wëlbati koo dem njaaloo keneen ku dul borom këram boobu donte sax ginnaaw ba daa tas bu dañ koy rey rey googu lislaam di faral di digle nag ak ku nanguutu julli mu ne nañ ko rey ak mu ne ko rey nit nañ ko rey yooyu day nuur ak soxor fekk du soxor defar kaw suuf rek la ndax yooyu noonu buñ ko respecté woon di ko def rek kaw suuf day yéwén nii xam nga ne mos ku waaxu rey sa morom moom jé war war a def lu dul rey la rek hmm, rey nit moom ku ko def te tey ko dañ la war rey hmm, moo tax kon loolu lislaam dana koy digle léeg-léeg waaye du rey kon seen tuub googu ba tey yërmande rek la seen tuub googu yërmande rek la Mm-hmm. suñu borom ne summa baasnaakum topp ñu dekkilaat leen min baadi mawtikum ci ginnaaw seen deegoogu laalakum ndax xañ na yéen tashkuruna ngeen sant yàlla xam noonu suñu borom dekkilaate bañ def noonu jàll wax ne suñu borom ba tey kon moo jàll ba tey di nettali ci yi nga xam ne xewoon na ci diggante mm, yahudi yi ak yonent yàlla Muusa bi leen suñu borom boole lool suñu borom ci lay ba indiwaat beneen nettali beneen xew-xew muy wa zallalnaa aleykum alxamaama wa anzalnaa aleykum almanna wa salwa kulu min tayibaati ma razaqnaakum wa ma zalamuna walakin kaanu anfusahum yaslimoon wax na dëgg wa zallalnaa keraloon nañ ñun yàlla aleykum ci yéen alxamaama niir wa wa anzalnaa wàcce woon nañ itam aleykum ci yéen al mën na mën na ga wal salwa ak salwa loolu ñaari xeetu ñam la danañu ko leeral léegi boroom moo leen ko joxoon ne leen kuloo lekk leen min tayibaati ma ci way teey li nga xam ne razaqnaakum wërsëgal nañ leen ko ñun yàlla daa tey teg nañ ne wama wala muuna tooy ñun ñu ñun yàlla walakin waaye kaanoo nekk nañ yadlimuna di tooñ anfusahum seen bopp wa zallalna alaykum alxamaam wa anzalna alaykum almanna wa salwa kulu min tayibaati ma razaqnaakum wa ma zalamuna walakin kaanu anfusahum yaslimun loolu day loo xam ne ngir ñu tekki ko du ñàkk luñ la wara a njëkk leeral ngir buñ waxee aay bi nga mën koo dégg ndax dafa tàmbal rek ne ñun yàlla ñoo leen keraloon doxoon seen digganteeg naaj ñoo leen fa wàcceeloon ñaari xéewali ñam muy alman ak salwa ana nag lu waral loolu kon loolu la ñu war a njëkk a leeral ngir nga mën a gën a dégg aaya bi bu baax a baax su ko defee da ngay fàttaliku ne kon banu Israil bi nga xamee ne suñ boroom subhanahu wa taala boole na leen ak Moussa da leen a joxoon digal ci ñuy dem ci bërëb boobu nga xam ne mooy baytul maqdis foofu ci Palestine joxuñ leen digal nañ leen nañ dugg ca dëkk ba xeex ak nga xam ne ñoom ñoo nekk ca dëkk ba ci ndimbalal yàlla da gañe da ngeen leen dàq génne leen dëkk ba su boobaa nag ngeen féetewoo ko te xam ne suñ borom moo leen ko jeg leen Moussa ànd ak ñoom ñu dem ba ca bunt dëkk ba ba jub dëkk ba ba jub dëkk ba rek ñoom ñëpp ñu taxaw ne dëkk bi moom duñ ci dugg daal di xeex ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. ndax daal wax nañ ne ñooña ñoo leen ëpp kàttan loolu suñ borom subhanahu wa taala mi ñu koy nettali ci suratul maida muy bim naan leen suñ borom subhanahu wa taala moo leen jox ndigalul dugg ci dëkk bi mooy yaa xaw mi udxulul ardal muqaddasata allati kataba allahu lakum naan leen wala tartadu ala adbaarikum fatanqalibu tanqalibu xaasirin waaye xaaloo ñu ne ko yaa muusa inna fiha qawman jabbaarin kon nag wa inna la nadxulaha xatta yaxruju minha fa in yaxruju minha nag boobaa fa inna daaxilun mhm. loolu lañ wax Moussa dana leen dugg leen ci dëkk bi ci suuf sell fii nga xam ne suñu borom jagleel na leen ko kataballahu lakum bu leen déngi déngi bu leen deltu ginnaaw ba tax ñu di leen not góor góor leen su ngeen xeex ñoom rek suñu boroom dimbali leen ngeen génne leen dëkk bi waaye ñoom booba ñu lànk rek ne ko ñun daal duñu dugg ci dëkk bi ndax dëkk bi ñu fi nekk ay ponkal lañ yoo xam ne mënuñoo xeex ak ñoom inna xaw xawman jabbarin kon nag wa inna lan nadxulaha xatta yaxruju minha duñ dugg lu dul ñoom dañoo génn fa yaxruju minha daal fa inna daaxiloon mooy saa boo xamee ne génn nañ rek ñu dugg noonu ba am na sax ci ñoom ñaar ñu baax ñoo xam ne ña nga doon jéem a soññ seeni moroom naan leen ah dugg leen rek su duggee rek yéen yéenay not yàlla dana leen dimbali wakiilu leen ci yàlla rek te ñu dugg xeex mooy fa isaa daxaltum fa innakum xaalimun wa alallahi fa tawakkalu in kuntum muminin waaye luñ wax xaalu ñu ne yaa Muusa inna lan nadxulaha abadan maa daamu fiiha da ko dëkk bi daal li wérte wër mooy dund ci dugg mukk moom di feeg rek ñoom ñi ngi ci biir ne ko bu la noonu nag nga dem rek yow nga ànd ak sa borom nga jéem a xeex ak ñoom déggal loolu nan ko fazhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaacidun loolu lañ defoon lànk ne duñu dugg ca dëkk ba duñu dugg duñu xeex ak ñoom loolu daa taxun suñu borom subhanahu wa taala daal leen di gëlëman ngëlëmte loo xam ne metti woon na lool nga xam ne lu man ñeent fukki at dañ koo gëlëm di ko wër ci benn béréb boo xam ne bu ñu xëyee dañuy yendu dox ba jant soo te fekk demuñ fenn mu metti ci ñoom lool ngëlëmteel benn bis képp daa metti wala fukki fan waaye ñeent fukk laa wax ci ay at suñ boroom teg leen loolu moom danaan fa innaha muharramatun alayhim arbaina sanatan yoo xam ne yatiifoona fi l ardi mhm. fala taasa ala alqawmi fasiqin loolu mag moo waraloon suñu boroom ci yërmande jum ci rofaat mooy di leen keral ci aw niir bu bëccëgee rek suñu borom wàcce ay niir yoo xam ne daf leen di tiim mu dox seen digganteeg naaj wi loolu daal di nekk yërmande ci ñoom loolu la suñ suñu borom di fàttali naan wa zallalna aleykumul xamaam ñun yàlla ñoo leen doon keral ci niir yooyu moo tax nga xam ne fu mel noonu na ko fi nekk faaw nga aajowoo loo lekk ak itam loo naan ci kaw loolu nag moo tax suñ borom moom it andil leen fa loo xam ne doon nañ ko jëfandikoo ci lekk bënn loon leen fa itam ay bëti ndox yoo xam ne doon nañ ci jëfandikoo di ci naan moo tax wax wa anzalna alaykum manna wa salwa kulu min tayibaati ma razaqnaakum wa ma zalamuna walakin kana anfusahum yaslimun wax na dëgg mooy wa anzalna wàccee na ñun yàlla alaykum ci yéen al manna mën na ga al mën danañ ko leeral léegi wa salwa ak salwa ne leen a kuloo lekk leen min tayibaati ma ci wayteey lii nga xam ne razaqnaakum war sëgal nañu leen ko suñ boroom nag daane waaye ne ko ma zalamuna too ñun ñu ñun yàlla walakin waaye kaanoo nekk nañ yazlimuna di tooñ anfusuhum seen bopp leen loolu lépp nag tooñ seen bopp rek moom moo leen ko yóbbee buñ nangu woon dugg ci dëkk ba ci ba leen ci seen boroom duggloo kon lool du leen ci fekk su ko defee almënd googu ak salwa dafa bari ay wax yi ci boroom xam-xam yi wax mën wóote nañ ci lan la fekk nañu li gën a bari ci nit ñi sax liñ koy leen moom mooy ak lem ak lem moom bari na ñoo xam ne wax nañ ne mooma boo xoolee jaabir ni mu ko waxee te jële ko ci amir ash-sha'bi moom daf ne asalukum haza juz'un min sab'ina juz'an min al-mani dana ma ne seen lem gii nga xam ne moom lañ yor di ko jëfandikoo ci àdduna ab xaaj la ci mën na googu ci boo xaajoon mën na juróom-ñaar fukki xaaj benn xaaj la ne kon day mel ne kon genre lem la te dàqoon lem te dàqoon li nga xam ne mooy ak lem mooy mën na ci boppam Ikrima dafa wax ni moom almann shay'un anzalahu llahu alayhim misla talli mbir la mu yàlla doon wàccee ci ñoom ñu doon ko jëfandikoo muy bàyyi ko ci asmaan mel ni saaru taw wis taw taw taw booba nga xam ne day indi doq yi sew a sew nga xam ne ni muy dala ci sa kaw yaram daanaka da nga koy yëg waaye doo ko xaw a gis bu baax mooy toll nga xam ne daan wàcc daal te nekk mel ne taw mel ne ndox muy wàcc def taw bu sew rek boo xam ne ni muy wàcc daanaka day wàcc di dajaloo ñu di ko jël di ko jëfandikoo ci jamono boo xool Ikrama noonu mu ko waxee nag dana nuróog noonu ni ko Xattaada waxee ndax moom it daf ne alman yanzilu alayhim fi mahallihim waaye suquta salji daan wàcc ni glace di wàcc comme neige bi ni muy wàcc noonu xam ne day nooy يعني سخ أشد بيادا من اللبن دان دان ويختل يعني مولان جنا ويخ أمسو وأحنا من العسل مولان جنا نيختم أكلم يعني من مولان دقلم ما دخ بخول عامر ني وخني بين خالد كل سن لمك أدنجي بين خالد كي بوا خالد من جرم يعرفكي خالد ما دام مم وحي كنون دان دا ويا ولا فوي خن تال بجنا ويخ أمسو جنا نيختم yasqutu alayhim min tuluu il fajri ila tuluu il shams dégg nga xam ne ci waxtu fajar jàpp jant bi génn foofu diggante boobu la daan wàcc fi fajar du jàpp fi jant bi fenk diggante boobu la daan wàcc su ko defee ñu koy jël nag di ko jëfandikoo am na ñoo xam ne noonu lañ ko waxee ku mel ne Ar-Rabi' ibn Anas nee na moom euh, sharabun yanzilu alayhim misla al-asal na moom ak naan la yàlla daan wàccee ci ñoom mu mel ne lem nga xam moom ni mu waxee ne ñoom ñoo ko daan mélangé ak ndox di ko naan moo tax mu ne fa yuma sijoonuhu bil maa'i summa yashrabuunahu nga xam daan wàcc ñu koy boole ndox di ko naan moo tax dafa nekkoon ñam woo xam ne soo ko lekkee moom dong muy aw ñam soo ko booleeg ndox nag def ko benn jus mu daal di tudd ak naan moo tax man daal wax yi ci wax dafa bari moo tax ñu bari dañ koo melal ci ak lem waaye ñoom la wu leen suñ boroom joxoon ñu daan ko jëfandikoo la ca topp tam mooy li mel ne ak salwa salwa moom itam am picc la teewul sax moom am nay wuute waaye nag wuute gi moom génnul xeet bi maanaam xam nañ ni xeetu picc la waaye nag man picc la moom am na ñu ci wuute am na ñuy wax ne ay xeeti tipp ripp la am ñu jàpp tam xeeti kaay yi nga xam ne moom lañuy faral di jël ay nenam di ko jaay te nen yi di am ay couleur nga xam ne moom dafa daan wàcc moom itam ci ñor ñu daan ñu daan ko jëfandikoo moom tam suñu borom subhanahu wa moo leen defaloon xéwal googu nga xam kon mën na salwaa ñaari xeeti xéwal la ñaari xeeti yu baax yoo xam ne yàlla moo leen ko doon wàcceel ñu doon ko jëfandikoo ci diggante boobu ñu nekk ci ngëlëmte loolu suñu jox lañ ko nag ne lekk leen ci lu teey te dagan lii nga xam ne ñun yàlla ñoo leen ko wërsëgal suñu borom nag door cee teg foofu ne waaye nag tooñun ñu seen bopp rek lañ tooñ kon ñàkk ga ñàkkoon a dugg ci dëkk ba yàlla teg leen loolu ñoo ca tooñ seen bopp moom la naan wa anzalna aleykumul manna wa salwa kulu min tayibaati ma razaqnaakum a ma zalamuna walakin kaanu anfusahum yas